كفيته وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل سفيته وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل فديتني بشي الكفور والكسل وجلت لي منك بما عيبي خسل سويت عمري وكفيتني الخجل يا ذا البقاء وكفيتني الوجل بزي مثل والكازل والكسل وجدلي منك بما بي غزل رفعتني لك بما منك نذل يا من كفاني عدوي وانحذل برتني كل شك وملل وكل ما ردت من الملل مددت لي ما لا يفارق الجذل يا ممتي لك توجهت بدل راغبتي سعادتي لديك خطت في الأذل يا من كفاني الهدى ما الخذل شيت لي بخير خير في النهل يا من فداني بمن قبل محل جدت لنا بمفرد فاخ الجمل قلت لنا مخجل جيش وأمل جد لنا بمفرد فاق الجمل قلت لنا مخجل جيش وأمل نبهتني تنبيه باق لم يذل أورثني أكرم ما منك نذل ناجيتني ربي بمخجل الأمل يا خير من ناجاه وحبد بحمل هديتني جاءت بما حيبي خذل وخت لي ما ليس ينؤه كسل آه، هديتي بما عيبي خثل واختلي ما ليس ينوه كسل ترس حياتي عن شخاء وخجل بخاء من أورسني ذكر الأجل ترس حياتي عن شخاء وخجل ñu ngi fi tey euh, ci Touba bi nga xamante ci suba wër nañ commencé si service commencé pour gën a wax nit ñi ne lépp loo xamante ne nañ ko ci wàllu faj bu fekkee amul li ñuy continuer wax plusieurs fois même bu nekkul tey bi ñu paree loolu yëpp ñëw nañu ziar suñu papa suñu parce que moom itam koo xamante santé priorité la donc bu ñu ñëwee ziar nañ ko dooli nañu ñaan parce que toujours mu ngi ñuy ñaanal ñëw nañ ci porte parole bi bi nga xam ne mooy sëñ Bass Abdou Khadre itam gis ngeen li ma leen wax ne moom lay def ci santé ñun daal am nañu yaakaar ànd ak administration territoriale nga xamante ne monsieur le gouverneur moo ko yore mais yoru ko rek pour santé mais parce que tey jii ku nekk xam ne ne santé du ñun rek ñuy faj ñoo ko yore dañu nekk ci li nga xam ne dañ koy wax multisectorialité li ñu wax une seule santé am nañ ci yaakaar loolu ci infrastructure

donc nous ñaan suñuy doom suñu ay sétat ñeu vraiment pour mëna jëw relève bi parce que yaakaar né ne li ñu desee kam tam bëri na. hôpital euh, Cheikhoul Khadim mi ngi biir Touba mais rek duma wax ne dafa nek ci dispositif magal bi parce que au delà du magal également c'est un hôpital de référence euh, extrêmement donc important ba nga xamante tay bi nga xamante dañu déménager Dantec bokk na ci l'hôpital yi nga xamante jël nañu ko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 te boo bañee mu surprendre da préparation Si ngeen diggee ci site ministère de la santé dans le bulletin épidémiologique nous surveillons près d'une vingtaine de maladies C'est am solo la mais léegi dañ ci également maladies non transmissibles qui xam nga ne diabète baa ngi fi hypertension insuffisance rénale jàpp nañ tant que nous mu ngi dund day tant que nous ngi feebar aussi nous avons encore koy gàllankoor sur le plan socio-économique ce qui est important de se préparer presse bi xaar le terme sagité n'est pas du tout approprié. Il s'agit de mort euh, d'une personne, d'une femme qui est décédée en couche que nous regrettons. Et aujourd'hui, euh, la justice donc, euh, est là-dessus. Nous ne pouvons faire que nous incliner donc, devant la mémoire de notre sœur et prier pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis euh, céleste. Maintenant, la justice y est, donc nous attendons ce que nous demandons, que des clarifications puissent être faites. C'est une Sénégalaise. Vous savez, le risque existe partout et au ministère de la Santé, nous sommes aujourd'hui sur la mitigation des risques.